jéppi bi nga bi nga bi ñenn sénégalais yi ñu si bëree ba dañu jéppi dañuy dem ba jéppi waala sax journaliste RTS yi ba ba ñu boo demee si yenn rencontre yi wala yenn mbir yi sax da ngay xool dañu lay xeeb dañu lay xool ko bëtu jéppi sénégalais yi quoi en fait laa bëgg a wax pour yow jéppi boobu noonu amoo leen ci responsabilité en quelque sorte mais mais am nañ ci responsabilité nit ki kay loola takk am nga ci responsabilité mm-hmm. responsabilité boobu moo jur mm-hmm. moo tax ñuy wax te mënoon a noppi mm-hmm. responsabilité boobu moo tax ñu ñàkk suñ teraanga te mënoon koo denc tey ku mel ne man mii di wax ak yow tey chef de service la chef de service boobu dama ko sacrifier ngir ñu topp sama ginnaaw tey lii mu ñu bëggoon a def loo bu ñu ko defoon man man na maa am lu mu néew néew ñeen fukki junni eh, eh, eh, juróom ñetti fukki junni yu yokku sama ah, salaire huit cent mille yaa ngi dégg mm. mais damaa gestu gis ne technicien bi yor caméra bi nga xam ne tey moo tax ñu may gis preneur le son bii ay trente mille lay am ay soixante mille pour fukki at yañ jëm Mhm. lan la lan la ñoom dañ ñoo jiital ngir ñu jàppale leen daxawu mhm. leen lu mhm. xaalis mais dund gi ñu war a maanaam RTS fañ ko war a yóbbu ak fi mu war a àgg ñun moo ñu tax di xeex waaye du ay affaire mais euh, kuñ daawul fay ba xëy di la fay mais kooku tey ah, ñu ñu daaw nga dem ba ñu nome la ba mu yàgg ñu nomewaat la ñu dem ba ngay dégg chef de service te koo xam ne dañoo ñëwoon ñu ne la bokkoo ci kooku boo santul yàlla foo jëm lan nga jàpp ni Racine Talla loolu bëggoon ngeen def ko te defoo leen ko ba looloo war indi coow li mooy xanaa ñu nekk ay militant wala ñu nekk ay taalibe te yàlla nag daa def bi wut sëriñ jotee dañoo dem wuti sëriñ kon jébbalu nañ ba pare mooy bi tànn jotee dañoo dem ci waa kër sëriñ Touba ñu jébbalu fa ñii dem ci waa kër maam Alaaji Malick jébbalu fa ñii dem ci kilifa yu baax yi kenn ku ne nga joxe sa bopp ngir ñu jëm teg la ci siraatal mustaqim mm. kon boobu wéy na mënut noo xàcc di jébbalu ci kudut sëriñ ñaareel ba mooy bi ñuy dugg RTS dañoo tànn ne ñun ay agent la ñuy doon kon mënta ñëw bëgg ñoo def ay militant mënta ñëw euh, li li nga xamee ne baaxul ci kër gi ñu ànd ceeg moom te mën a jur loraange tey mën koo jur suba ñun waruñu ko jaral mm-hmm. am na loo xamee ne dara jaru ko ci àdduna mm-hmm. te yàlla dañoo nattu nag dañoo traversé loo xam ne dund loo xam ne fukk yóbbuwuñu mm-hmm. mais bi bi problème bi commencé moom bi biñ ko falee am na ñenn ñu d'accordul parce que da ngeen bëggoon euh, ki nga xamante ni moom la ñuy fal mu nekk njiitu RTS au moins mu nekk koo xam dafay nekk seen njaboot yéen seen biir euh, au-delà de euh, revendication boobu noonu xëy na amoo leen ko waaye benn ci lu may laaj mooy yéen jéem ngeen a di waxtaan ak moom ay dialogue ndax balaa presse bi di si jot est-ce que ngeen di toog moom ni ko ah ñun de lii lañ bëggoon lii lañ bëggoon nga def ko. ñaata at a ngi nii déggoo ñoo moom. Mhm. te problème yi gënoon a métti. jafe-jafe yi gën a métti. Mhm. waaye boobu dañ daan toog waxtaan. Mhm. waaye bi mu demee ba jàpp ne xëy na jekku na. wala jàpp na ne am na doole joo xam ne mën na koo jël teg ko suñ kaw. ci la jafe-jafe am. ñaari at ëpp ko waxtaan amul. lépp loo xamee ne sunu njëriñ la wala sunu taxawaay wala loo xam ne dañ ko waroon a def tey da koo dindi ba pare bëgg cee boole nag kër gi jëm ci yàqu goo xamee ne daa jot ñu ne lii kat lu ëpp tuuru loolu moo ñu indil lii ñuy dund nii waaye mënoon nañoo noppi ba waxtaan jotee Abbas ak Cheikh Ibrahim ñoom dañ daan wax ne ko ak Cissé nañu toog tëju ñu waxtaanee ko ñu génn mais RTS tey fii may wax yow li fa Macky Sall def ci ay milliards. Mm-hmm. lim fa def ci wàllu alal mm-hmm. tey fii may wax yow RTS jafe-jafe yi nga xam ne waroon na ko am du ci wàllu googu. Mhm. kon ñun ñoo war a xool suñu bopp. Mhm. ñun ñoo war a am beneen taxawaay boo xam ne bokkut ak taxawaay bi Sénégalais yi di xaar ci ñun. Mhm. Euh, bi xaar ci ñun ñu am boobu taxawaay. point de revendication yi lan ak lan ngeen di sàkku pour moom daal di koy def wala sinon président Macky Sall daal daal daal ci. non yëf yi moom boo bëggee dégg-dëgg àgg na foo xam ne. gis nga nag nit bu defee fukki at ci service. lu ko ëpp. dem ci yëf yi ba ñu année yow dépassé nga âge retraite cinq ans. yow mi retraité. nga war a yërëm sag njaboot yërëmootoo leen nga ne dama leen di toroxal yow mi retraité mais ki nga xam ne moo la fi teg teg la ci condition ñu lay fay salaire juróomi million mm-hmm. jël oto boo xamee ne daanaka ci xayma tey jege na daanaka euh, euh, euh, soixante dix neuf million et quelque jox la ko mm-hmm. jël oto jox la ko nga yóbbu sa kër mu yóbbu say doom ñuy jàngi di romb samay doom mm-hmm. man ma fay agent jël oto mu yóbbu say soxna ñuy nduggi marché di romb suñu jabar yi ñuy xaar car rapide ak yooyu teraanga jooju bu la ko président de la république defalee dala koo defal ngir nga yërëm njaboot gi mm. waaye defalu la ko ngir nga ñëw ah, di di di ñu noot wala di ñu indil ay jafe-jafe yoo xamee ne tey kenn mënu ko explique donc moom président mettre na ko ci condition yoo xamee ne ba pare ñaareel ba ca topp mooy ah, ñu commencé gis ay jafe-jafe yoo xam ne di gis loo xamee ne mm. dàpp naa ne jot na ñu ne lii na dakk te nit boo defee fukki at ak nangam ci benn bërëb dafa dem ba li waa naan moo si nga da koy yëy ba mu yàgg day sàppi. alors ñi nga xamante ni ànd ñoo ci ci xeex bi xëy na ñoom am nañ seen raison mais ñoom lan nga leen di euh, man jàpp naa ne ñun ñëpp lañ ñun lañ àndal. Mm-hmm. Euh, ndax tey RTS benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. Mm-hmm. Euh, tey ñi nga xamee ne tey mooy kilifay diine yi xeex ba yëf yi réew mi àgg fii yeneen ñeneen xeex bi ñuy xeex métti woon na peut-être que ñoom mënaguñoo comprendre parce que ñun dañoo am yàlla dañoo natt ki ñu tegal di politicien. Mm-hmm. politicien dafa am ay pratique pratique yi mooy ah, xam na ne il faut mu jéem a diviser njaboot gi ah, diviser njaboot gi nag nit ñi yamuñu ñii mën nga leen tey xupp ndax loolu da fii may waxe yow mm-hmm. ku yëngu mu affecté ñun bañ affectation ku yëngu mu wàccee la mm-hmm. tey fii may waxe yow amul benn syndicaliste bu nekk ci kër gi bu yor poste déjà loolu rek injustice gën ko rëy moo ngi mel ne tey maa ngi koy misaal ñu ne diw murit la ñu ne euh, euh, wàccee leen ko diw tijaan la ñu ne wàccee ko dafa am ay corde yoo xamee ne ba mhm. pare ñaareel bi mooy mais syndicat ay partenaire lañ mhm. tey war ngeen mën a toog di waxtaan di joyante kër gi te kër gi rek yu teel leen donc ñun loolu moo ñu xaw a jaaxal ci doxalinam ak yeneen yoo xam ne ay pratique la yoo xam ne rus nañ koo wax nit ñi di ko dégg mhm. gis nga li ñuy wax nii nit ñi di ko dégg li ci suuf moo ëpp téeméeri junni yoon kenn mënu koo jël joxoñ ci baaraam donc ñun loolu mooy sunu problème mooy moom am na du ma ne deful am na lu mu def RTS mm-hmm. mais cooli mooy àgg na ci foo xamee ne ci RTS waxuma la dara mais déjà RTS mm-hmm. image am dañ ko war a defaraat ci mm-hmm. war nañoo fexe ba nit ñi dañuy seetaan ñaareel bi mooy lool dañ ko war a liggéeyaat ñaareel ba ca topp mooy ña fa ne nga xamee tey ñuñ xamoon la docteur ma siga kenn gisatu ko Louis Philippe Sagna kenn gisatu ko um Maïmouna Ndir kenn gisatu ko ummi nduur kenn gisatu ko euh, euh, euh, tey nu mu tati Issa Thioro Gueye kenn gisatu ko Alsane Cissé kenn gisatu ko tey boo demee rajo bun waa ñoom anañu mhm. Cheikh Diop anañu euh, euh, euh, ay Xavier anañu ana ana tey boo demee boo demee rajo ba tey tey ana Ibrahima Khalil Naar Fall mhm. donc ñoo xamee ne tey ay icône lañu liggéey kër gi ba kër gi àgg fii ñu jël leen xanaa ana Xadir Aydara ma mhm. sœur respect parce que moo ngi dund ci ruqam ak dignité kenn gisu ko ci yenn yi kenn déggu ko ci yenn yi tànn métier am matricule ñu ne la dootoo fi liggéeyee ndax ay détails écarté la ci kër gi man mii di wax ak yéen nee naa leen depuis un an et quelques ngi dañ maa tere télé bi neewuñ ma da wax lu waxuwul neewuñ ma da waroon a liggéey si te liggéey si woo neewuñ ma da def lu defuwul joxuñ ma demande d'explication benn raison lañ am mooy da bokk ci syndicat. ah bon loolu lañ la wax. mais dañ maa lo loo dañoo ñëw wàccee ñi syndicat bépp. ñu leen toog lañ daal. moom moo ma fal ñaari yoon. moom moom Racine Talla ndax bi may fal dafa dafa maa fal parce que damaa nekkoon ci syndicaliste déedéet dafa maa fal parce que damaa am ay compétence dafa maa fal parce que damaa xam sama liggéey te ba ma fa falee moom la la ma fa ma demande d'explication bi lii waroo ko woon a def mm. ma liggéey sama liggéey lu ma nit di reproché du liggéey mm. lu nit di reproché Abibou Mbaye du liggéey lu nit di reproché Abbas du liggéey ñeneen ak ñeneen Cheikh Ibrahim Ndiaye maanaam mm. maanaam yàlla sax danoo nattu Bamba tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci syndicat bi gàcce ngalaam ay liggéeykat la ñu xam ne ñëpp nangul nañ leen ko mm-hmm. kon boo jëlee ay nit te du ñun rek ñaata nit ñoo gàddaay tey am na ñoo xam ne ñoo nga toog seen kër ñii mat na juróomi at ñii juróom benn at ñii juróom-ñaari at ana ñoom fafa na sekk ah mm-hmm. maanaam tey directeur yi fa newoon lim dàq lu mu bon bon ëpp na vingt directeur